Union nationale des indépendants du Sénégal UNIS euh, moom la ñu invité tey euh, fas yéene séq ak moom waxtaan euh, Amadou Gueye maa ngi lay nuyu. Khadre Seck maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs di la jaajëfal ci invitation bi ñaan yàlla ñu jublu ci waxtaan bu rafet bi nga xam ni ñaan naa yàlla auditeurs yi am si jàngat ci. UNIS ak euh, man mi Amadou Gueye ak actualité bi euh, nga xam ni moo lu lay dund fii Sénégal. Mm. jërëjëf euh, Amadou Gueye danañu wax ci actualité bi li ci gën a fës xam nga bokk na ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne président Macky Sall nee na du ci du ci bokk. Euh, dinañu ci daal di euh, ñëw ak lu jëm ci wàllum parrainage beeg ak yeneen yoo xam ne euh, aju na si ba ci mbiri Ousmane Sonko fi ñu dooree waxtaan wi rek moom mooy seen kuréel gi di UNIS ndax mën nañoo xam UNIS pour ñiy déglu kañ lañ taxawal UNIS kañ lañ ko taxawal. waa UNIS ñu ngi ko taxawal depuis 2008. 2008 ah 2008 donc muy Union nationale des indépendants du Sénégal mu nekk kuréel bi nga xam ni dañ ko taxawal. pour jëmmal euh, maanaam euh, citoyen engagé yi nga xam ni peut-être gisuñu seen bopp ci parti politique ñu nekk ñuy woy ay indépendant maanaam bokkuñu ci parti politique duñu bokkuñu ci pouvoir bokkuñu ci opposition waaye li ci ëpp ay nit lañ yi nga xam ni dañu am seen xam-xam am seen yéene wala ñu ngi nekk ci quartier yi wala ñu ngi nekk ci société civile ba pare am yéene participer ci vie politique bi parce que nag xam nga démocratie suy dox euh, léeg-léeg dañuy weesu syndicat weesu parti politique te citoyen bu am xam-xam am yéene am gis-gis war nga mën a ñëw indi sa contribution euh, ñu gis ni nag euh, ñu mel noonu il faut mu am benn kuréel bi nga xam ni dañ koy bokk pour bañ ku nekk rek jóg bëgg tax euh, tabaxal bu indi benn tabax bu bees moo tax ñu indi Union nationale des indépendants du Sénégal. Mhm. donc ñu ko créé depuis depuis 2008. léegi fi ñu toll nii ndax mën nañoo wax Union nationale des indépendants du Sénégal Sénégal gi yëpp foo dem mën nga ko faa fekk ak si diaspora bi. non pour temps mun naa ne nekk guñu fépp nag ah vraiment bi ñuy commencé ñu new la ñu woon waaye depuis tamit am na euh, ay représentants yi nga xam ni ñu ngi dans la diaspora am ñu nekk Canada am ñu nekk États-Unis waaye li ci ëpp nag ñu ngi fii euh, ñu ngi fii dakaar dafa fekk nag sax loolu sax bokk nañ ci faiblesse yi ñu am parce que nag xam nga indépendants yi souvent dañuy xaw a maanaam am seen autonomie. Mm. bëri na sax ay euh, souvent ngeen dégg ay candidats indépendants yi nga xam ni ci élection yi ngeen leen dégg su élection yi waas passé ñu kenn du leen déggati donc loolu bokk na ci faiblesse bi nga ba nga demee noonu. non warut a demee noonu xam nga nag parce que engagement warul nekk engagement bi ngay am rek ci élection soo amee yéenee bokk defar sa dëkk mënul nekk benn mbir bi nga xam ne da ngay jóg rek wax ci su élection jotee. da nga ci nekk di ci dox parce que ñun ñii euh, euh, créé ko depuis 2008 nekk nañ ci combat citoyen yi nga xam ni euh, bokk na ci ñu yaatal géew gi pour citoyen indépendant bëgg ci kok liggéey nañ ak bind nañ bind nañ ay lettres président de la république ba nga xam nii moom sax loolu euh, démarche yooyu ñu def bokk na si lu tax ñu changé loi yi ci participation indépendant yi ci élection locale yi àndal si ak ñu mel ni ay ñoom maam Adama Gueye ak ñoom Cheikh Tidiane Dieye euh, ñoom ñëpp tamit ay c'est des indépendants ñoom Mamadou Lamine sax ñoom au début c'était des indépendants léegi peut-être ay mouvement citoyen lañu waaye donc euh, jéego la bi nga xam ni def nañ ko ci ñu ngi milité tamit ci ay causes yi nga xam ni mel ni l'emploi des jeunes bokk nañ ci coalition pour l'emploi des jeunes bi nga xam ni dañ ci nga xam dañ c'est des étudiants diplômés euh, ñu fekk leen ci xeexu emploi boobu ñun sax amoon nañ suñu liggéey. waaw mais est-ce que UNIS am ngeen benn idéologie maanaam yéen lan ngeen gëm. waa ñun lu ñu gëm mooy ni euh, démocratie dañ ko war a yaatal indi ci ay citoyens waaye bu bañ a yam rek ci parti politique loolu dafa nekk lu am solo. Euh, xam nga euh, euh, démocratie bi nga xam ni danga ko wéer rek ci ay parti politique dafay nekk benn démocratie bi nga xam ni dafay nekk une démocratie purement politique war na am une démocratie citoyenne d'engagement citoyen ah kooku c'est très important kooku mooy benn ñaar euh, beneen bi ñuy indi bi nga xam ni moo ñuy définir mooy ni ñun soo gisee ñuy wax indépendant dañu jàpp ni Sénégal dañuy wax sax ñaari parti fi am mooy pouvoir ak opposition te ñun dañu gëm ni euh, nekkul noonu la démocratie war a doxee démocratie mooy pluralité. maanaam mu am ay kuréel ak ay nit yu bari yi nga xam ni dañu am xalaat bu bañ a nekk xalaatu noonoo xalaatu euh, yéegal ma wàccal ma ma jël sa place donc ñun lu ñu gëm mooy dañu war a soppi euh, démocratie nu muy doxee ba nga xam ni dañuy changer démocratie d'opposition boobu dañu ci ñëw sax peut-être pour l'instant euh, bu ci kanamee wax naka la maanaam noonoo boobu jàmbaarloo boobu di indi mën a dem ba ba tas dëkk ah wala indil ko ay jafe-jafe donc loolu bokk na si euh, suñuy suñuy suñuy suñu yéene ah, mais mais Amadou euh, Gueye aussi mhm. lan moo tax ngeen taxawal UNIS fan la idée bi jóge ak lan moo nekk seen pas-pas ba ngeen taxawal ko waaw nee naa la benn mooy ñun dafa dafa fekk dañu gis ni Sénégal Euh, bi ñuy def suñu observation suñu analyse parce que nag balaa ngay engagé wu day fekk nga am seetlu ah ba pare am xam-xam ñun nag yàlla dimbale nañu euh, dañu yàgg liggéey ak état Sénégal Mauritanie ak dans la sous-région nekkoon États-Unis liggéey Banque mondiale di liggéey ak partenaires yi donc am nañ gis-gis bu yaa participer à des programmes de réforme yi nga xam ni en 2000 bi Abdoulaye Wade di soog a toog jot nañ ko seet ci wàllu démocratie assemblée nationale ak yooyu yëpp ba xam ne gis nañ ni fii euh, danger bi nekk Sénégal mooy ni niñ koy téye maanaam euh, ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ñu tegee système bi système présidentiel euh, opposition ak ak ak façon boobu daal nga xam ne dëkk bi noonu lay doxee ñun jàpp na ni loolu dafa nekk benn de benn danger te soo gisee sax depuis les 60 ans dama koy tàmm wax depuis Sénégal am indépendance saa yoo fi déggee ñu dégg ay dee ci par dizaine par vingtaine ci politique la jóge waaw loolu nag duggulee dafa fekk système bi ñu teg moo indi noonoo boobu ah bi ñuy wooyee ñun mooy démocratie d'opposition bi nga xam ni dafay indi dafay indi xeexoo euh, ba nga xam ni tey sax moom la ñuy gis ah ñun moo tax dañuy ne lu weesu tey Ousmane Sonko Macky Sall wala opposition ak pouvoir loolu système boobu moo fi tegu ba nga xam ni képp ko mënti nekk rek bu yàggee da ngay am benn situation bi nga xam ni situation jàmbaar loola bi nga xam dafay indi danger donc loolu ñun dañu jóg pour soppi ko indi beneen beneen façon ba nga xam ni tey euh, Sénégal moo koy doxee maanaam au lieu mu nekk benn président de la république rek mën nañ dem ba nga xam ni tey kaat yi wala cinq yi nga xam ni ñoo jiitu ci élection yi mën nañ yéeg bokk kuréel boobu ñuy wooyee présidium bi nga xam ne day am benn président la république waaye mu bokk ko ak yeneen kaat yi nga xam ni ñoo ko ñoo ñoo ñoo topp ci moom ba nga xam ni loolu day tax quatre-vingt-quatorze pour cent des sénégalais dañuy gis seen bopp ci ñi téye dëkk bi donc bu boobaa. ni ngeen téye dëkk bi nekkul kenn gagné ñeneen ñi perte déedéet juróom yi nga xam ni moom la sénégal sénégalais gis ni ñooy seen leader ñoom ñooy yéeg téye dëkk bi mu nekk un présidium parce que nag moo wax ko ni loolu système boobu am na sax en Suisse ah nekkul gulet dafa fekk ni Suisse sax ñoom at bu nekk dañuy changer président waaye fii. mën nañ am benn président la république mu toog ak yeneen cinq leaders yi nga xam ne ñoo ci topp nga xam ne ñoom ñooy téye euh, orientation nationale bi moom mu am nag ay ministre am ay ministres yi nga xam ne ñooy nekk gouvernement bi donc ñun système boobu la ñu bëgg indi bi nga xam ne dina wàññi noonoo bi gën a dëgëral taxawaayu démocratique bi parce que day am une meilleure représentation de des des des te ñi nga xam ne ñoom la sénégalais wóolu ñoom ñooy ànd tee Sénégal doxal ko te ñun Sénégal tey loolu lañ soxla moo tax euh, du ñu tàyyi di woo Sénégal ci changement boobu nga xam ni war nañ ko def bañ a bàyyi rek ñu jël benn nit bu gagné ñu jox ko dëkk bi ñeneen ñëpp perte mu doxal am ay noon donc loolu nekk yomb. non xam nga lu simple la damay joxe exemple tey man loolu ma lay expliquer su nekkoon tey loolu moo doon dox 2012 maanaam tey Abdoulaye Wade day am cinq pour cent yéeg nekk mooy président la République ñun ci suñu système dañ ne président de la République mooy yor défense yor affaires étrangères maanaam ci bitim réew ak ci Sénégal moom la ñuy gis comme président de la République moo yor tamit défense teritoire national kon kooku ay ay ay moom lañ ko dénk Euh, beneen bi mooy ñu ne moom mooy tànn premier ministre premier ministre mooy yor koom-koom yor sécurité intérieure waaw ah, parce que nag sénégalais yi koom-koom la ak sécurité intérieure ñoo koy doxal ñu ne am na beneen pàcc bi nga xam ni ki koy yor. mooy ki jël deuxième. mooy ki ji déedéet premier ministre moom président moo koy tànn. waaw ah, président moo koy tànn maanaam dañ koy diviser juróom juróomi pàcc. juróomi pàcc ci ci nga xam ni ku nekk dafa am lu ñu lay dénk nee naa la benn bi mooy président de la république moo yor défense ak affaires étrangères su ñuy représenté Sénégal. moom la mooy président de la république suñu yor defence mooy chef de des forces armées mais nee naa la président de la république nga xam ni moom moo jiitu moom moo fal moom tam mooy tànn premier ministre waaye premier ministre suñ ko tànnee du nekk benn njàccaar bu toog foofu rek ñu koy wax lu muy def déedéet dañ koy dénk euh, sécurité intérieure maanaam police ak sécurité donc sécurité intérieure gendarmerie te te moom tam mooy yor koom-koom plan ak finance mu am donc kooku mooy ñaari pàcc bi nga xam ni benn premier ministre ko yor benn bi président la république mu nekk beneen pàcc bi nga xam ni mooy collectivité locale ak ak ak ressources naturelles euh, élevage agriculture. mu jël mu jël deuxième mu yor kooku moo ko yor. Mm-hmm. mu nekk pàcc bu bu am solo. su may wax nag yor waxuma da ko yor comme comme ministre moo ko yor ci wàllu gis-gis ci wàllu orientation dafa am ay ministres yi nga xam ñoo nekk. ci suñu gouvernement voilà day am budget ñoom dañuy dañuy am budget maanaam cabinet la ñuy nekk mais dafay am presque taxawaay président orientation la république nekkul moom mooy doxal bés bu nekk parce koy tëral léegi nag au tey ñu koy ñu koy euh, euh, yemale rek ci benn président de la République nee naa la cinq yooyu ñooy yéeg ku nekk am benn pàcc bi nga xam ni gis-gis bi yaa koy yor te sax maa ngi naa dellu si si gis-gis bi parce que gis-gis bi il faut mu nekk benn gis-gis bi nga xam ni mu ñooyee vision nationale maanaam ñoom tey sax soo leen faloon li ñuy njëkk a def mooy euh, taataan vision nationale vision nationale mooy yéene bi nga xam ni sénégalais yi am nañ ko parce que tey président de la République day yéeg indi vision moom waaye ñun li ñu bëgg mooy juróom yooyu leen tànnee doxal mooy vision nationale te ñoom tey su leen su leen njëkkoon fal li ñuy njëkk def mooy génnee vision nationale boobu nekk ci sénégalais vision nationale bon vision nationale maanaam gis nga tey sénégalais li ñu bëgg il faut ñu dem génnee ko ci ñoom laaj leen lañ la ñu bëgg naka lañu bëgg justice bi di doxee naka lañ bëgg koom-koom bi di doxee ñu laaj leen ko ñoom sénégalais ñu génnee ko euh, kuréel boobu jël ko tënk ko génnee ko benn document ak benn orientation ak benn stratégie bi nga xam ne dañ koy doxal su trente quarante ans loolu moo am solo xam nga tey Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa am benn stratégie bu mu noon doxal pour ñu tuddee ko politique de réduction de la lutte contre la pauvreté bi mu demee Euh, Macky Sall ñëw indi PSE suba keneen su de indi plan waa xam nga loolu nekkul dëkk noonu la war a doxee gis nga dëkk dañu war a dañu war a tëral benn yoon bi nga xam ni dafa leer ku ñëw jaar si maanaam yow suñu la falee da nga war a ñëw pour exécuter vision nationale boobu nga xam ni génne na ba xam ni sénégalais loolu lañ bëgg te nag sax loolu mooy dëkk da nga yéeg pour servir la vision nationale mais nga bañ a yéeg rek pour indi sa vision. mais li ngay wax ni euh, Amadou Gueye ay réformes yu xóot la laaj. mais réforme tamit yu simple la nee ñaar la. benn bi mooy nga ne euh, élection maanaam tey suñ ko doon def dañuy def élection suñuy dem président la république mooy mooy ki ki ëppale mooy président de la république nee naa la keneen ki mooy jël euh, ressources naturelles ak de locale keneen ki mooy jël euh, justice travail protection sociale gouvernance lépp luy àq mooy indi mooy mooy doxal gis-gis bi keneen ki mooy yor lépp luy service commerce tourisme ak yooyu yëpp nee naa la premier ministre bi nga xam ne président moo koy joxe mooy yor koom-koom ak ak tëb donc tey maanaam 2012 tey soo ko soo ko appliqué woon parce que 2024 ñëwagul soo ko appliqué woon 2012 di nga ne Abdoulaye Wade mooy président de la République topp ci Macky Sall topp ci euh, euh, Moustapha Niass topp si Tanor topp si Idrissa Seck waaw xam nga loolu soo ko amoon am nga équipe nationale gis nga tey man jàpp naa ne sax Sénégal yàlla am na lu mu ñuy wan gis nga suñu équipe national yi ba ci handicapé yi dañuy gagné lu tax parce que équipe nationale la. jëluñu équipe APR yóbbu ñu équipe Mouride yóbbu jëliñu équipe Tidiane yóbbu jëliñu équipe Lébu yóbbu dañuy jël ñi gën a ñi nga xam ni ñoom lañ jàpp ñoo gën a xarañ teg leen ci kanam yàlla may ñu ci ndam gis nga esprit boobu nag mooy uni mooy nañu booloo indi ñi nga xam ni ñoom la Sénégalais gis seen bopp. ñu denk leen dëkk bi ñu taxaw équipe nationale. d'accord jërëjëf euh, Amadou Gueye yow yaay euh, président union nationale des indépendants du Sénégal léegi wax nga sa gis-gis euh, ci lu jëm ci ka yow d'accord ñu dem élection présidentielle kenn am 52 pour cent wala pour cent ñi si des ñëpp ñàkk da nga jàpp ne ki jël premier ba ki jël 5 ñoom ñëpp war nañoo mën a nekk si benn présidium wéy di doxal loolu seen gis-gis. la seen vision la mm-hmm. est-ce que tey UNIS mm-hmm. am na vision ci ndaw ñi ndax Sénégal dañu gis ne mm-hmm. population la boo xam ne ñi ëpp ci askan bi ay ay ay ndaw lañ est-ce que yéen am ngeen programme ndax dañu gis ne même Abdoulaye wadd daf ci échegoon même président mag Sall jéem na ci mais gis nañ ne daf ci lajj ba léegi ci lu jëm ci emploi des jeunes yéen ban gis-gis ngeen ci am waaw loolu moom vraiment dafa nekk li nga xam ni euh, mooy sax li ñu gën a soxal ndaxte gis nga ñun dañuy ne sax si nga foofu dañ foo war a def choix de société gis nga jeunesse ak emploi du rek benn projet wala benn politique publique bu ndaw choix de société la maanaam ñun naka la ñuy dugg ni naka naka la ñuy jubalee suñu société choix bi ñu koy def war na feeñ ci jeunes yi parce que lu tax 75 pour cent de la population Sénégal sur 100 personnes 75 yi ay jeunes lañu kon te nee naa la loolu nekkul li nga xam ni dafay nekk sur 5 ans sur 10 ans fii ak fii ak deux mille cent soixante dix fii ak soixante dix sept ans proportion boobu noonu lay noonu noonu noonu lay def noonu lay des kon ça veut dire que ñun tey politique publique jeunesse moo war a sax orienté ñun naka la ñuy doxalee koom-koomu Sénégal ñun moo tax ñu ne lu mu bon bon bon cinquante cinq pour cent des ressources du budget de l'État war nañ ko jublu ci ñaar benn mooy jeunesse ñaar mooy agriculture. gis nga jeunesse ak agriculture pourquoi ñu échoué ko ba léegi parce que defuñu si xaalis bu doy ñëw neen fi créer ay projets yu ndaw cinquante milliards trente milliards mais loolu cinq mille emplois dix mille emplois maximum mais chaque anne tey mu am trois cent mille jeunes yi ak ci ci emploi bi mais kooku mënoo ko régler ak ay problèmes yu ndaw yooyu il faut nga jël mu la moitié du budget de l' moo tax ñun dañu ne xam nga tey budget état bi six mille quatre cent onze milliards la. Rewen dina nekk sept mille sept mille milliards. fii ak deux mille mille deux mille trente dina nekk dix sept mille milliards. mais yéen bu doon six mille milliards rek ron six milliards lan ngeen def ci agriculture ak lan ngeen def ci jeunesse. nee naa la deux mille cinq cent milliards laa la wax de. waaw cest à ñun calculer nañ ba nga xam ni tey mun nga jël deux mille trois cent milliards par an at bu nekk donc cinquante cinq pour cent du budget de l'État. parce que budget bi chaque année dafay yokk de 10 pour cent daaw sa nee naa la ren 6400 la 10 pour cent à peu près moo tax ñu nekk 7000 milliards 10 pour cent déwén 2020 2025 léegi 7700 milliards noonu lay continuer kooku moom calculer nañ sur 20 ans le budget augmente de 10 pour cent chaque année ñun jàpp na ne soo jëloon 55 pour cent. à peu près genn wàll bi pour jeunesse bi la su may wax nag pour jeunesse bi la dañ koy def ci mbay mi ak ci jeunesse bi. parce que jeunesse bi il faut mu am lu ñu leen dénk. li gën a am solo Sénégal mooy réussir l'agro industrialisation su ma wax l'agro industrialisation mooy mbay mi waaye itam transformer loolu di jóge ci mbay mi mooy coton bi transformer ko mu nekk ay tissus mooy fruits yi transformer ko mu nekk ay jus ak nectar tout ça loolu nag mooy agro industrie mu bañ a nekk li nga xam ni dañ koy bay rek jaay ko chinois yi gis nga nag loolu dafa soxla ay moyens pour pour pour ndox bi pour defaraat suuf si pour defar ay usines pour defar ay usines parce que li ngay bay il faut nga transformer ko si ay usines ci collectivité locale bu nekk jënd ay tracteur ay machines ay 20 milliards 30 milliards yi ñuy jënd ci ay machines loolu amul benn njariñ budget boobu nag 2300 milliards dañ ko xayma nag ba mu leer nañ nag man li may wax nii duñ ko wax par hasard dañ ko xayma ba mu leer nañ c'est 2300 milliards la ñuy def ci ci ci mbay mi gis nga loolu suñ ko defee fii Sénégal non seulement koom bi dina yokk jeunes yi dinañ liggéey. te nag nee naa la jeunes yi ñun dañ leen di dénk agriculture ñu des ñu investir ko à l'intérieur du Sénégal mu bañ a yem fii Dakar. mais mais agriculture bi ba doo ko yemale ci euh, trois mois yu ñuy wax euh, gerte gi ñor nag dugub ji ñor. non non non au que ñun vraiment li ñuy bay fii juste loolu céréales yi la rek mais tey. gis ngeen li ñuy wax agriculture gis doxalaguñu ko. non non non doxalaguñu ko xam nga moo tax ñun sa à dire mooy li ma la wax dañ si defagul ay moyens yu doy. dañu ci war a def des moyens conséquents. mais mais moyens ak vision. moyens ak vision absolument parce que nag mooy li ma la wax c'est-à-dire euh, euh, euh, il faut il faut nga am vision boobu loolu moom c'est c'est important moo tax ma ne la vision bu njëkk mooy nga jël sa jeunesse def leen partenaire. c'est-à-dire nga bañ a jël xale yi rek comme ni parce que ñun Sénégal rek peut-être ñun ñëpp la sax dañuy jël ni xale xale la rek. donc joxuñu ko gëdd joxuñu ko responsabilité. il faut ñu ne ñii ñooy suñu partenaire pour développer Sénégal. mbay mooy lu gën a am solo bi nga xam ne pari boobu dañ ko réussir parce que fii ak nee naa la CEDEAO fii ak 2100 nous allons cinq 1 milliard 500 équivalent Chine ñun soxlawul ñu dem uti marché Chine parce que marché bi nee naa la CEDEAO rek laa la waxuma la Afrique 1 milliard 500 ñooñu il faut ñu lekk ak naan. yow ak Sénégal soo defoon loolu sa marché fii lay nekk laa la waxuma la sax li ci des li si des Afrique liggéey boobu nag il faut nga liggéey ko ci 10 ans. mais nag il faut nga liggéey ko ni ko brésiliens yi di liggéey di ko américains yi di liggéey il faut nga liggéey ko ak ay moyens ak ay machine tracteur lépp li nga soxla nga jël ko def ko te moo tax ñun nag pour xale yi am 18 ans balaa ñu lay dugal ci système boobu dañuy ne la pendant 3 mois da ngay def service militaire. parce que xale bi danga nga koy waajal xale la dix ans da nga koy dugal service militaire mu génn am caractère taxaw xam xam métit xam liggéey xam mission nga soog ko dugal nag mu nekk un ouvrier agricole nga koy jox 100000 francs par mois. mu liggéey nekk fa ku ko def neuf mois di liggéey ak ay machine moderne soo koy bàyyi moom dina mun a demal boppam te ñiy créer entreprise ñoom tam dañuy créer une dizaine ou une vingtaine d'autres emplois gis nga affaire bi c'est ça l'enjeu te dafay créer koom-koom bu mag Sénégal parce que fii Sénégal xam nañ gis nga mbay mi su doxul dara du dox d'accord léegi euh, jërëjëf euh, Amadou Guèye wax nga ci li nga xamante ni mooy mbay mi ak euh, emploi des jeunes mm-hmm. tey li nga xam ne mooy mooy secteur privé mm-hmm. Euh, dafa am solo ci réew. secteur privé di créer emploi. ñu gis ne euh, Sénégal secteur privé bi mën nañu wax ne dafa nërmeelu. Euh, yow est-ce que am nga programme ci ci secteur privé bi. waaw xam nga secteur privé moom secteur privé la. c'est-à-dire c'est le secteur de risque. wala yow wala yow wala yow agriculture bi ngay wax ni da ngay jël waa secteur privé bi ñoom. non secteur privé gis nga état état nekkul mooy defar secteur privé gis nga affaire nag il faut mu leer état. nekkul mooy defar secteur privé secteur privé mooy ñi nga xam ni ñoom dañuy ñëw dans une zone d'opportunité gis fa ay occasion ba jox la exemple tey état day jóg tey ñi ñu nekk nii ñu ne day defar ay port dañuy defar ay chemin de fer dañuy defar euh, ay infrastructure ay ay entrepôt logistique mais loolu tey secteur privé mun na ko defar gis nga lépp li nga xam ni secteur privé mun na ko defar état def ci war a génn fi nga xam ni foofu la ñu am problème nee naa la mooy les la jeunesse ak l' agriculture état foofu la war a dem investir. xam nga avant état moo doon nekk di def ay investissement ci chemin de fer aéroport et consort parce que boobu ñi ko doon liggéey sax ci seen dëkk rek la yemoon amuñu woon capitaux yi nga xam ne mën nañ ko liggéey feneen waaye léegi am na ñi nga xam ni mën nañ ñëw ne la man dama bugg tabax port mais soo buggee tabax port man dama lay dama lay dimbale nga ñëw. fooy tabax port Sénégal man soxlawul nga may lebal man Sénégal pour ma tabax poor yow tabaxal port sa poor la li ma intéressé man mooy yow secteur privé lépp loo mun investir man je vais je vais prendre les conditions pour que nga mën a investir soo buggee semaine de fer sax nee naa la tu peux trouver des yu mun ci ànd ak ay sénégalais ñëw ne dañuy tabax chemin de fer. problème bi ñu nekk tey mooy Sénégal as bi ñu am dañ ko bugg jël di ko investir di ko def di leb xaalis di ko def ci li nga xam ne secteur privé mun na ko defal boppam. soo ñëwee def chemin de fer ne man dama bëgg def chemin de fer dem ba Casamance ma ne la tabaxal sa chemin de fer la yaay fay sa prix yaa xam keneen ñëw ne man dama bëgg dem tabax chemin de fer dem Tambacounda ma ne la tabaxal defal. li am solo mooy Sénégalais bi am accès à des réseaux de chemin de fer ñu densifier sur l' espace territorial toutes les infrastructures mais man soxlawul man ma koy jël bor. man fi ma soxla ja sama xaalis investir ko mooy dans l' agriculture et dans la jeunesse parce que ñooñu su doxee lépp dox. waaw mais dañu gis tamit Sénégal ci agriculture bi ngay wax nii bëri na ñuy mbay mbayum noor mooy carotte bi soble yi yu demee noonu am na ñu bëri dañuy bay mais après dafay mujjee yàqu ndax amuñu ay chambre froide ay infrastructure de conservation. waaw loolu laa lay wax nii moo tax mën na la gis nga loolu mooy infrastructure yi nga xam ne ñu doon ko war teg intégré ko nga tey. dañu war a am et man je le de manière structurée c'est-à-dire si territoire bi da koy teg ba nga xam ni danga koy da koy da ngay def un maillage en terme de de d'entrepôt de stockage numériser ko nag parce que yow tey soo soo bayee ba pare war nga mun a jël sa marchandise dugal ko ci benn euh, entrepôt nga yor sa ordi nga yor sa sa téléphone rek di xam loo am foofu stock soo ko bëggee jaay nga jaay ko à partir de sa téléphone c'est-à-dire loolu mooy mooy su mooy wax agro industrialisation technologie yooyu ngay indi. Mm-hmm. nit ki dafay jël tey euh, maanaam euh, ceebam wala wala wala wala wala wala dugubam wala wala gerteem dénkaane ko foofu à partir de la téléphone am rek. mën na jël di commander di ko jaay ñooñu nag ñu am spécialité nga xam ni mooy seen métier affaire entreposage parce que kii bay métier du entreposage yooyu ay infrastructure la liggéey ko nag. teg ko defar ko gérer ko dafa laajte ay moyen ak des ressources humaines ma ne la foofu la état war a ñëw investir ba nga xam ni tey kuy bay su xasee ba génn. loolu yëpp da koy am. Euh, mais euh, Amadou Gueye yow yaa nekk président union nationale des indépendants du Sénégal UNIS. Mhm. yéen am ngeen programme ci loolu mais tey euh, dañu gis tamit loo xam ne ndax yéen am ngeen ci programme ak lan nga ci leeral sénégal yi mooy lu jëm ci wàllum justice. Mhm. ndax Sénégal dañu gis ne dafa benn manque de confiance boo xam ne. Mhm. am na diggante sénégal yu bari ak justice bi même ci biir magistrature bi. UMS euh, ñoom dañuy faral di di xeex pour pour l'indépendance de la justice tey ndax yow am nga si solution. waa xam nga justice moom c'est vrai que souvent dégg naa idées yu bëri ah temps yi démb def naa démb rek maa ngi dégg ñuy laaj kenn est-ce que. soo nekkee président di nga bàyyi conseil supérieur de la magistrature bon yooyu yëpp ay propositions yu baax la maanaam dañu bëgg dagg diggante euh, exécutif ak ak justice mais yooyu yëpp baax na mais man li ma jàpp ni moo gën a am solo mooy gis nga nit suñu lay jugé na nekk jugement bi nga xam ni ki koy jugé d'abord du nekk moom kenn ba pare na nekk ay ay ay nit yu bëri yi nga xam dañ ko séq ba nga xam ni ñoom te du fa am ci gàttal ñun lu ñuy proposé mooy ñu introduire juré comme un droit fondamental maanaam képp ki nga xam ni tey yoon daf la war a atte constitution daf la war a jox euh, sañ-sañ nga ne man dama bëgg ay juré fàtte ma xam nga am na Angleterre am na États-Unis parce que loolu la ñuy woowee système anglo-saxon ñun système bi ñu am mooy système français am na temps sax juré amoon na au niveau criminel cour d'assises mais aujourd'hui tey dindi nañ ko man nag loolu dama bëgg ñu delloo si ko généraliser ko ma joxe cas bi nii temps yi rek cas yi ñuy gën a tudd muy kaawu Karim Wade muy kaawu Khalifa Sall muy kaawu Ousmane Sonko tey su nekkoon dañu ne pour àtte leen dafa am 30 jurés 30 sénégalais yi xam dañ leen di tànn au ah sénégalais bu nekk mën na la tànn nga ñëw mhm. ñu seppi leen nag parce que suñu gisee ni yow da nga jeng wala da nga bokk PDS wala da bokk ci parti Ousmane Sonko wala da nga bokk ci APR dañ lay écarté ba ñu gis ni daal am na 30 sénégalais yi nga xam ni ñoom daal maanu nanu ñooñu nga teg leen ñu déglu procès bi léeg sax mën na laaj su procès bi jeexee ñoom ñu ñu beru ci benn néeg ci seen biir waxtaan ci waxtaan ci li leer ñu ñu ñu ñu laaye biir ko seen biir lu leerul tamit ñu ñu ñu ñu laaye biir ko ñooñu gëm naa ni sénégalais soo si jëlee groupe bu vingt trente personnes ñoom dinañ mën a ak ah, kii de def na wala deful gis nga nag loolu hmm. trente sénégalais yooyu man jàpp naa ni et puis sax ma yokk si ni euh, dañu ne ñun senegal suñuy àtte dañ koy àtte ci turu askan bi waa askan bi léegi nit ñi jàng nañu am diine am xam-xam ba nga xam ni tey mën nga si jël trente yi nga xam ni ñu ñëw ñu ñëw àtte. mais mais yow boo boo nekkoon tey euh, njiitum réew da ngay bàyyi ministre de la justice euh, jilif procureur ba tey wala. non ministre de la justice moom gis nga procureur il faut mu am fu mu wékko. c'est-à-dire ñooñu tamit suñuy wax ni procureur du yilif ministre. Euh, service état état moom ku nekk rek am na ku la yilif procureur bureau procureur service la il faut mu am ku ko yilif li ñuy wax kay mooy dañuy ne nañu wax ministre. bu mu amati sañ-sañ jox wax procureur naka lay lay toppee wala bañ a topp wala tax ñu ne su koy wax na ko bind te ñu jël loolu dugal ko ci dossier bi parce que nag mm, bu ñu fàtte procureur mun na am njombe am moom mu bañ a topp euh, nit ñi jóg di wax ni lii normalul bu boobaa ki nga xam ni moom la ñu fal dafay am sañ-sañ ne procureur ah lii des askan baa ciy wax dafa bëgg nga topp ci tekkiwul nii daf ko war a condamné wala war bañ ko condamné. bëgg askan voilà loolu loolu premier ministre mu la ko wax lu mu mënul wax mooy condamnel ki daanal kii ak yooyu. ba pare ñu bëggoon mu am transparence dañuy ne saa yu joxee ordre boobu wala su joxee instruction boobu dañ koy boole ci dossier bi. ñu xam ni moo ci wax ñu xam lan la wax maanaam tey su nekkoon par exemple dafa am comme kaawu viole boobu amoon taay mhm. su nekkee dafa am benn waaye bu violé ay xale. Mhm. ñu toog lu yàgg procureur topp ko. nit ñi jóg di ci wax di wax lu tax. waaw comme nag soo nekkee ministre de la justice war nga mën a ah procureur man de nit ñi ñu ngi wax ci affaire dama bëgg nga nga nga topp affaire bi. waxuñu nga nga nga condamné ko mais nga topp ko maanaam nga ubbi dossier bi ñu xool ci nekk. waaw loolu man jàpp naa ni ministre mun na ko wax. procureur nag moom il faut que ñu ñu leeral ko ni moom moom moo am sañ-sañ seet nu muy toppee te nag procureur sax nekkul mooy daan. juge bi mooy daan. man moo tax ma ne même kooku ñu ne dañ ko dañ ko jiñ viol bés bu ñëwee war na mën a man dama bëgg ay juré. parce que man jàpp naa ne soo xasee ba indi juré rek indi nga ay sénégal yi nga xam ni président mu leen jox ordre procureur mu leen jox ordre juge mu leen jox ordre trente lañu dañuy dox seen aqulay taala te ñoo ñu soo leen fa bàyyee su waa ji defee dinañ ne moo def su deful dinañ ne. mu def mais longue détention yi nag. non longue détention yi moom dama ne d' abord sax euh, le fait que ñu euh, nu mu facilité nu ñuy dugalee gars yi prison man loolu dañu waroon wax ni procureur loolu dañ ko ko war a génneel loolu pour man dañ ko war a génnee ci loxo procureur. c'est-à-dire tey euh, ñu wu ñu waroon la juger tey euh, jëlaguñu ju jour pour juger la kenn warul la denc ci prison dan la war a bàyyi nga ñibbi sa kër kooku mooy benn te tey. bu dee da ngaa def lu rëy nag. waaw nan la yóbbu ci juge bi kon juge bi àtte ne da dugg ci biir mais li warul nekk mooy xaarandi kenn jugé gul suñ la jugé gul kon juge waxagul ne li nga def rëy na pour man tant que kenn jugé wul su nekkee li nga def rëy na. war nañ mun a am en urgence un juge mu ñëw atte ne yow da ngay dugg ci biir mais xaarandi rek pour kenn pour ñu seet ndax li nga li ñu lay toppee dëgg la no léeg sax même ñaari fan sax c'est pas normal c'est-à-dire su nekkee li nga def dafa rëy nañu am benn juge mu ñëw même ne la en urgence moom mooy décider que yow le temps sax ñu lay juger fii ak ñaari fan na nga dugg mais tey procureur mun na moom mun na moom avant sax ñu ne juge bi di la gis moom mu dugal la ci biir pour man loolu procureur warul am dañ ko war a retirer sañ-sañ boobu. weesu na nag li ñuy wax ay longue détention yooyu loolu man vraiment loolu euh, euh, akulaay taala la c'est vraiment euh, vraiment dañ koo war a dindi parce que nag vraiment nit nit la liberté de homme et d'une personne est sacrée. ah vraiment dañu war a xam ne dans la loi sax am na ay dispositions yi nga xam ni soo nekkee yenn délais yu ndaw yi soo defee 6 mois kenn jugé wala dañ lay génnee mm-hmm. mais daal war nañu war a gën a waat foofu mais mooy li ma la wax xam nga tey suñ la mayoon sañ-sañ nga ne man dama bëgg mu am ay ju ay ay juré yi may déglu balaa ñu lay dugal prison na nga jaar ci benn groupe bu juré su nekkee cinq personnes ñu déglu procureur wax ñu rek deetu ko garder ko la ko garder man pour man défense bi citoyen yi war a am mooy yeneen citoyen yi su nekkee procureur ak juge dañ la war a dugal man dama ne suñu diggante nañ fa teg ay citoyen ñu seet ndax li ngeen ma war a àtte dëgg la wala normal na wul normalul su normalee din ma dugal su normalul citoyen dinañ wax bàyyi leen ko mu ñibbi këram jërëjëf jërëjëf euh, Amadou Gueye yaay euh, président bu UNIS hmm. euh, tey élection présidentielle 2024 hmm. ndax yéen pare ngeen pour dem ci élection yi ndax pare ngeen pour dem ci waaw mooy sunu mooy sunu yéene parce que nag ñun jàpp nañ ni élection 2024 yi élection yu am solo la xam nga depuis 2010 euh, Sénégal ñu ngi fi wax ay waxu réforme gis ngeen assises nationale yi ah souvent ci waxtaan yëpp mooy naka la ñuy soppee lii naka la ñuy corriger justice euh, naka la ñuy defaraat mbay mi donc dafa nekk dañu nekk benn période bi nga xam ni dañu laaj euh, changement man pour man élection yi du rek tey changer benn nit. loolu defe naa ni loolu suñ ko defee euh, erreur la pour man dañu war a tey faire un changement radical pas surtout radical tamit en tout cas un changement important ci nu ñuy doxalee Sénégal te ñun ci wàll boobu nee naa la ci moo xam ci wàllu gouvernance moo xam ci wàllu emploi moo xam ci wàllu justice ñun jàpp na ni vraiment sénégalais yi jot nañ dund ay événement ak ay situation bi nga xam ni tey war na leen may ñu xam ni euh, système bi fa nekk nii suñ ko fi bàyyee ku fi ti yéeg tamit même chose mooy. mooy yow anti système non du ma ne anti système man mooy li ma wax depuis 2008 dañu gis ni li fi nekk moom euh, vraiment erreur la euh, te sax baax na ñu ñu xam ni du question Macky Sall du question Abdoulaye Wade parce que depuis 2008 lañ koy wax système bi nu mu tëddee nii xam nga anti système mooy euh, maanaam vraiment dafa mel ni li ñu fi tëb yëpp baaxul ñun waxuñu loolu. dañu ne gis nañu faay yi fi nekk. faay yooyu nag dañ koy corriger parce que nag kenn mënul wax ni Sénégal amul état. yan faay. faille mooy nee naa la sànq ci système de gouvernance bi le benn nit mooy tee Sénégal di doxee ni mu ko xalaatee dama ne loolu erreur la bokk ma ñi ñi nga xam dañu war a wàññi dooleem rek dénk ko assemblée nationale. Euh, régime parlementaire pour man régime instabilité la soo gisee ay Israël ak Grande-Bretagne chaque trois mois ñu changé premier ministre ñun loolu attanuñu ko man dama ne président de la république war na mën a gouverner ak les quatre autres présentant bi nga xam ni du amati kenn kuy gagné ñeneen ñi perte. kooku mooy benn mais par ngeen pour dem yéen ci élection ci élection yi loolu mooy sunu sunu. sunu sunu sunu sunu yéene ñu bëgg si tam ànd ak euh, euh, on va voir parce que am na ñeneen ñi nga xam ni euh, ñu ngi annoncé seen seen candidature jàpp na ni peut-être ñoo ñoo bokk gis-gis ah temps yi gis nañ y a des des candidats indépendants et puis sax on est ouvert à une alliance dafa am ñi nga xam ni ils sont dans l'axe de la continuité maanaam dañu bëgg wuute Macky wuutu doxal baax na loolu ñu continuer wala li système bi ni muy doxee noonu baax na ñooñu ñoo nekk dans l'axe de la continuité mais ñëpp ñi nga xam ni nag ñu ngi si dans l'axe du changement ah moo xam peut-être au niveau de de de Yewwi ñun on va les rencontrer pour voir euh, quelle dynamique on peut porter ensemble parce que nag yàlla ak sénégalais rek ñoo xam. su nekkee dañu ñun la ñu tànn ñu ñu ñu ñoom ñu topp si ñun wala ñoom su nekkee ñoom lañ tànn ñun ñu topp si ñoom waaye li am solo mooy ñu boole suñu xalaat ba nga xam ni tey soo nekkul président au moins sax xalaat di leen ko indi ba nga xam ni coppite yooyu ñu bëgg ci Sénégal mu am parce que moo gën a am solo def def sa yéene rek waaye li gën a am solo mooy priorité yooyu ñun ñu am par exemple en matière d' ñun tey su nekkoon dañu gis tey ñun. Uh-huh. un candidat bi nga xam ne dafay porter ñun suñu priorité en matière d' des jeunes. en matière de justice. et puis euh, ci ñaar yooyu rek laay wax. est-ce que leen am échange de maanaam tey par exemple tey bu ngeen gisoon tey euh, Pastef wala waa ñëw ngeen indi seen programme ñu xool lan la ñuy ñoom jël seen programme dugal ci seen programme. waaw nga waxtaan boobu moo commencé en fait soo gisee ñu wax élection présidentielle du rek jour élection bi mooy lii yëpp mooy waxtaan boobu ku nekk indi sa gis-gis nit ñi déggante xam kii fii la jëm et cetera nga gis ne ah, kii de peut-être man am naa idée yi nga xam ne jàpp naa ni noonu la waaye peut-être moom tam am na mbooloo yooyu yëpp mooy indi dynamique nga xam ni mën nga dem ne ah peut-être que yow de mën nga ànd kii parce que nag loolu la ah, dans la vie aussi il faut il faut être ouvert yàlla mën na def mbooloo topp la wala idée topp la keneen ñëw ànd ak yow waaye yow tamit ñun en tout cas il faut ñu nangu loolu suñu gisee nit nga xam ni mbooloo topp na ko te ba pare mu am ouverture ci idée yi ñun dañ lay topp par contre nag ki nga xam ne ñun maanaam gëmoo suñuy suñuy suñuy priorité yooyu ñun mën na la bàyyi nga dem loolu moom ñun euh, vraiment. du ngeen si négocier daal. waaw tôt ou ku fi jóg te defoo nange enjeu majeur ci emploi ak agriculture ba pare def sénégalais gën a ànd doo dem fenn. parce que d' abord soo yéegee su nekkee gagné nga même à 52 pour cent 48 yi nekk contre yow nee naa la la maje sa énergie bi yëpp di nga ko consacré di xeex ñeneen ñi. d' accord voilà. mais mais dañu gis mit euh, wàllu mal gouvernance ci Sénégal yow lan moo ci sa xalaat. bon ci wàllu mal gouvernance bi man vraiment euh, je dois dire que euh, depuis wadd ak Macky gisuma ci changement. ah vraiment euh, euh, foofu la foofu la bu président sénégalais yi gën a amee sax déception lu weesu euh, dund bi nga xam ni dafa cher waaye mal gouvernance bi benn mooy ñi nga xam ni dañuy jël askan xaalisu xaalisu askan bi kenn du leen topp dañ leen di protéger def naa Macky sax moo ci gën a yées. parce que ci Ablaye Wade sax euh, am na ñi nga xam ni dañ leen doon topp moo di bu. Euh, bi nga ACR nan ko. mais ci wàllu ci ci Macky Sall moom bi nga xam ni vraiment moom pour man c'était la grande déception parce que moom il a montré carrément ay nitam daal kenn du leen kenn du leen laal. impunité totale waaw impunité ah, parce que nag loolu soo ko defee vraiment euh, da ngay nekk sax. rapport yoo xam ne du mujj fenn. mais et puis loolu sax c'est contre la république parce que nag république encore une fois il mooy égalité des amul amul amul amul amul da ñu féetee kaw ndax ndax non non amul amul da ñu féetee kaw ndax ni nga juddoo loolu mooy république kon yow ma la yow topp parce que yow am nga loo def te bokkoo sama camp yow ma lay topp parce que non non il faut mu am une égalité parfaite entre les citoyens gis nga loolu soo ko defee rek loolu mooy le principe et la beauté de la république soo ko appliqué rek vraiment yaa ngi ci euh, yaa ngi ci situation bi nga xam ni euh, je pense que voilà li ci ëpp ci sénégal yi daal def naa loolu la ñuy ŋàññi ci ci ci Macky Sall te mu te loolu il est il est resté euh, presque c' était la continuité avec avec avec Abdoulaye Wade. jërëjëf Amadou Guèye mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi mm. muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h mm. Amadou Guèye moo jiite Union nationale des indépendants du Sénégal léegi. deux mille vingt quatre euh, président Macky Sall na du bokk ci euh, ci élection yi mu nekk loo xam ne euh, bett nañu bëree bëree bëri. yow ndax bett na la. non man euh, bett na ma bettu ma bettu ma woon parce que je pense même que en 2021 man euh, defoon naa une sorti pour diir que Macky Sall ne serait pas candidat waaye nag du ma gisaane parce que nag waaw no fi ma ko tegoon mooy nii dama jàppoon ni d'abord dama gis ni élection locale yi Euh, que que que euh, dafa commencé woon daanu. Euh, législative tam mu gën a daanu waa xam nga nag sooy daanu moom doo doo ne doo jóge ci kaw rek ne ne bëpp ci suuf maanaam pente la loolu tam moo daloon wàdd ah bi mu njàkkee élection 2009 yi boobu la chute bi doon commencé ñëw kooku mooy mooy benn te tam dama jàppoon nii moom dafa amoon ay pression yu métti yu tegu ci ci kawam yi nga xam ni jam ñooñu dañ ko doon puus pour mu nekk candidat mais que moom ci boppam peut-être que du woon obsession ah euh, soo gisee sax waxu ci woon man loolu fi firnde la woon que nekkul woon lu mu jëloon décision je pense que man bi ma jàppee ni peut-être bu mu si doon commencé xalaat mooy bi mu commencé lay ni mën na nekk candidat boobu laa gis ni peut-être mu ngi commencé changer kooku sax je pense que euh, euh, ren la woon bi mu commencé wax ni mën na nekk candidat boobu laa gis ni ah kii de mu commencé wax mu commencé changer parce que ba léegi dafa dafa dafa noppi woon waaye soo demee bay bëgg expliquer ni que mën nga nekk candidat sur la base de la décision de 2016 te 2016 euh, conseil constitutionnel waxul loolu dafa waxoon rek le mandat est hors de portée le la nouvelle le le mandat est autoporté la la nouvelle loi waa juste pour diir que maanaam loi bu bees bi mënul woon yokk mandat mënul woon wàññi mandat am loolu rek mais mu jafandiku si woon commencé wax nii dafa nekk dafa nekk dafa mu am na droit nekk euh, candidat boobu laa commencé gis ni mu ngi mu ngi changé. mais ñàkk dem gi mu ñàkk dem euh, quand euh, am na ñu bari ñu ko si félicité. waaw non fu mu demee ni bu mu léegi kay moom vraiment comme dem na ba ne ba ne ba ne ba bàyyi na euh, vraiment ñu ñëpp dañ koy rafetlu ah waaye itam on reste vigilant parce que nag dañ lay accompagner accompagner mooy def ba nga xam ni du am benn pression du am benn situation bi mën a tax nga soppi ko bon xam nga moom tamit nee na déjà dañ ko doon xaar ci waxu candidature bi rek waaye indi na ay waxu sécurité nee na Sénégal dafa am ay noon yu koy fexeel ay dëkk bon loolu tamit man sax damay ne il faut que Macky tamit euh, moom euh, Sonko am na théorie du complot waaye Macky Sall tam am na théorie du complot théorie du complot contre le Sénégal loolu tam il faut mu commencé ñu wax ban dëkk mooy fexeel Sénégal man gisuma ko. ban dëkk nee na dafa am ay force occultes yi nga xam ne dañuy jéem a daaneel suñu diine suñuy confrères ñan ñuy jéema daaneel suñu confrères yi mu ne dafa am ñuy def complot contre l'état bon peut loolu damay ne peut-être mooy euh, lii lii li li li ñuy wax mouvement insurrectionnel de Sonko loolu mun naa comprendre mais dafa dafa commencer développer une théorie du du complot pour ne euh, te tey rek yaa je que démb liir naa ko ci ci entretien bu mu def le monde nee na sécurité rek moo mënoon tax mu forcer. troisième mandat xam nga kon man jàpp naa ni ba léegi mu ngi mu ngi ñuy expliquer ni mën na nekk candidat te su ko situation sécuritaire bi laajee te moom moo indi fee yi nee na ay force occultes ak yooyu mën na mën na des. donc moo tax euh, damay rafetlu lu mu wax. Euh, je veux rester positif mais dama ne accompagnement bi nañ ko accompagner ba nga xam ni du changer euh, opinion. te ñun tamit nañu góor góorlu ba nga xam ni benn situation du ko may. ba muy ne dafay toog moo xam ne ne dafay reporter élection wala dafay changer décision loolu daal vraiment je voulais être complet c'est-à-dire nag nit mun nañ ko féliciter waaye tam mun nañ mun nañ ñun tamit fagarlu fa euh, euh, fagaru ba nga xam ni du ko may du am benn prétexte pour pour. pour changer. ça aussi c'est important. mais mais Ousmane Sonko moom nee na euh, élection du am euh, yu mu bokkul wala réew mi dafay euh, réew mi dafay pëccëxoo tey su dee Ousmane Sonko bokkul ci élection yi est-ce que tey boo gisee ne Sénégal am nay jafe-jafe li ngay wax affaire sécurité nii est-ce que président Macky Sall mënu fa jaare ne situation bi mënuñ see organiser ay élection non man dama jàpp ni sax tey Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoo ñoo bokk stratégie seen seen stratégie dafa daje. c'est-à-dire que ñoom ñaar ñëpp peut-être ku nekk gëm nga ni am nga ay doole ay nit walla ay force de soutien yoo am yi nga xam ni affaire bi su demee lu dul xeex que di nga gañe te nag loolu moo dangereux ci ci ñoom ñaar ñoo ñu taxawee euh, peut-être Ousmane ko jàpp na ni que moom su demee ñu jugé ko waat teg ci kaaw euh, Mame Mbaye bi moom peut-être gëm na ni loolu du ci génn ba nga xam ni dina invalider candidature et que loolu su demee donc euh, di présenter euh, candidature am conseil constitutionnel du jàll mhm. kon foofu li koy dese mooy li muy wax coogi fin euh, foofu tamit foofu la Macky Sall taxaw ne moom mooy président de la République di ko xaar si coogi fin ku fa indi coogi fin moom day toog gérer ko waaw kon moo tax ñoom ñaar au fond yoon boobu moo leen mën a may ñu ñu bokk maanaam ñu bañ a jaar conseil constitutionnel. est-ce que yow ñëw Macky Sall problème am ci dëkk bi ñaanuñu ko yàlla Macky Sall ne élection du fi am. non c'est-à-dire euh, suñ toppoon li Sonko di wax c'est-à-dire loolu mu ne su suñ ko bokkul su bokkul ci élection yi. kaaw kaaw am. mais foofu la Macky Sall taxaw di xaar. moo tax ma ne ñun. baax na ñoom ñu wax ñu seen bopp. ñoom wax nañu seen bopp. Mm-hmm. léegi li des mooy ñun sénégalais. Mm-hmm. est ñun nag. ñàkk nañ gis-gis ak anticipation ba nga xam ne dañuy bàyyi loolu am ñoom c'est les acteurs de la de d'opposition lool sax damay relativiser damay ne toujours su du woon ñoom di ñeneen rek gis nga loolu loolu ñu taxawe noonu loolu mooy li ma wax rek mooy démocratie d'opposition xeex ñaari kuy dem bay xeex moo doon Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade dafa fekk ni euh, chaque année dafay gën chaque chaque chaque cinq ans dix day gën a métti rek. donc nii tey euh, ñaari jeux yi ñaari joueurs yi mooy mooy Macky ak ak ak Ousmane Sonko dama ne ñun. est-ce que ñun Sénégal yi nga xam ni dañu bëgg mu am élection yi pacifique est-ce que loolu dañu war a taxaw di ko seetaan di ko commenter rek di wax su demee ba ni dëkk bi tàkk pour man la responsabilité aujourd'hui c'est de prendre des initiatives pour que loolu bañ a am nee naa la benn mooy accompagner Macky Sall ba nga xam ni moom tamit il va aller en paix parce que nag loolu tamit ñun ñoo ko fal président de la République war na mën a dem ci jàmm kenn du ko topp ci dara parce que sax ah ba léegi kenn tegul dara bi nga xam ne war na ko ki lay waaye tamit euh, lu ñu war a wax ak ak Ousmane Sonko ak keneen mooy ne nangu kenn taal Sénégal à de là nag nañu seet naka la ñu mun a organiser woo ba nga xam ne ñu dem dans des élections man ci sama gis-gis am na li nga xam ne mënul ñàkk. mooy Ousmane Sonko fu mu nekk nii. Euh, war na moom sax wax na ko dafa war a dem wuy ci procès parce que su demee boppam. maanaam constitué wu prisonnier wala sax ñu arrêté ko li ñu ko daanoon dafay daanu bu boobaa mu dem def ñu indil ko procès doy day dem man sax loolu yàgg naa ko wax ne mu def soxlawul moom soxlawul sax muy xaar ñu arrêté ko parce que pour man euh, du question état dafa ragal moom intérêt am mooy mu dem def procès indi ay avocat Euh, am na yu mu gëm ni ay loxo def ci dugg ci kaawam ñu ñëw taxaw defendre loolu man de gëm naa ne itam sénégalais juge yi fi nekk gënuñu leen bëgg Sénégal te xam na ni cas bi cas bu am solo la donc suñuy jël décision dinañ ko jël sur la base euh, d'arguments vraiment yi nga xam ni tenir nañ ko dans euh, de manière contradictoire parce que li am ci procès bi la dernière fois moom taxawul avocat am taxawul donc man jugement boobu mënuma ko considérer comme jugement bu am solo mhm. donc indi ay avocat défendre ci juge yi xamee ni li mu défendre am na yoon parce que nag tribunal ñu waxante ko balaa ñu lay condamné day fekk mu am certitude mais su nekkee am na doute mais dañ koy dañ koy acquitté moom na dem expliquer su nekkee gis nañ ni ah vraiment peut-être am na li nga xam ne gisuñu ko woon avocat mi génnee ko mais ñu bàyyi ko su nekkoon sax dañ ko li ñu ko teg nii mais bu boobaa day mën a def appel appel bi peut-être mën na def 24 mois mën na def 30 mois kenn xamul donc yow da ngay may sa bopp ay pexe yi nga xam ni mën nga setal sa bopp loolu moom wareef la parce que moom tamit suba su nekkee dafa war a jiite Sénégal waroo mën a ne man du ma ji tribunal déedéet am nañ ay ay ay défaut ci suñu tribunal am nañ ay fay waaye ci faay boobu la ñuy atte sénégalais ba léegi kon moom ci noonu lañ ko war a atte te moom il a une trentaine d'avocats yi nga xam ni macha allah donc dafa war a dem uy ji tribunal kooku mooy benn ñaar ci même l'affaire de Mame Mbaye Niang bon ça man je dois dire que personnellement je trouve que c'est scandaleux sa condamnation parce que vraiment ci affaire diffamation soo indee rapport bi ñu ne rapport faux bon ça moi je trouve c'est scandaleux mais ba loolu sax procédure boobu tam mu ngi ciy xeex mën na dem cour suprême cour suprême ne finalement euh, euh, kase nañ kase nañ jugement bi donc il faut qu'il aille jusqu'au bout c'est-à-dire nit da ngay nangu xeex xeex bi avec les les moyens est-ce ce que gisoo ne war naa mën a am waaw xam nga loolu damay wax d' abord c'est-à-dire si nga waxtaan il faut pas ñu ne waxtaan mooy am wala tribunal man man je suis pas d' accord parce que naa comme ni Yewwi di waxee comme euh, gars yi def nañ dialogue politique bàyyi ñoom Khalifa ak truc donc nan def noonu Ousmane Sonko non il faut que tribunal léegi nag à côté de ça moo ma doon deuxième point bi man je me dis il faut que ñun ñi nga xam ni peut-être bokkuñu far fenn ñu indi kon yow d' si aussi li ñu def si dialogue si xalifa ak Karim non man man man pour man euh, man man d'accord si parce que man man dama gëm république. munoo nekk république ba pare di adopter di adopter des loi pour deux trois personnes loolu amul sens. Euh, kon yow nga ne ànduloo ci. non man ànduma ci ni ñu ko doxalee. Euh, je pense que vraiment dañu waroon jël conclusion boobu nee naa sax président man su ma doon président su ma jëlee conclusion dialogue politique xam ni yéew itam def na dialogue mais damay dem jël seen dialogue. parce que man président waruma wax rek damay jël conclusion bi nga xam ni man maa ko woote rek su nekkee am na beneen pàccu sénégalais nga xam ni ñoom tamit ils sont représentatifs indi nañ seen conclusion mais damay jël ñoom tam ma liir ko xam nga Sénégal moo tax président waroo far da nga waroon jël ñaari rapport yooyu nga xool nga seet naka ngay boolee ñaari su nekkee da nga war a dem vers un plan de paix parce que man loolu laa gëm je pense que Sénégal lu mu soxla nii weesu na rek defaraat candidature Ousmane Sonko wala Karim man je pense que sénégalais lu ñu soxla mooy un plan de réconciliation nationale parce que gis nga léeg-léeg même ci kër yi ci koñ yi da ngay gis ces affaires là judiciaires dafa séparer nit ñi du rek candidat yi dafa dafa am benn fracture benn division voilà entre jeunes yi mag yi euh, entre voilà ci réseau sociaux yi donc loolu pour man li ñu soxla tey c'est un plan de réconciliation nationale plan de réconciliation nationale la suñ ko defoon amaana mën na am un certain nombre de mesures mu am lu ñuy wooyee ce que j'appelle une loi de transition man dama ne war nañu mën a am sax une loi de réconciliation national xam nga am na loi d'amnistie bi nga xam ne da ne damay baal ay faits parce que dañ leen condamné parce que dañ jaar tribunal mën nga am grâce bi nga ne damay bàyyi nit ki génn tribunal mais mën nga am loi de réconciliation bi ngay nee ñun Sénégal ñun askan bi gis nañ ni ay situation nii ak nii ak nii moo indi jaxasoo ak réeroo ci Sénégal mooy menacé lii ak lii ak lii ci kaw loolu comme dañu bëgg aar suñu Sénégal mu ngi jëm ci pétrole et cetera et cetera moo tax ñu indi mesures yi mu nekk une loi de réconciliation nationale nga boole si ñëpp nga xam ni. nekkul li nga xam ne nga koy voter pour Karim Wade wala pour Ousmane Sonko mais dafay nekk sénégalais yëpp juboo mun nga si dugal ay mesures sax de réforme institutionnelle ak yëpp mesures yi nga xam ni dafay tax sénégalais yi laa la wax ci seen bopp bopp gën a juboo ñu daq fa lépp li nga xam ni mooy xeex saagante violence pour man loolu lañ soxla ba nga xam ni sénégalais bu nekk su liiree loi bi dina ne ah, lii de man gis naa si sama bopp. mais est-ce que nekkul lu doy waar ñuy modifier ay code électoral ak ay loi euh, mesuré ko rek ci ñaari nit. non nee naa la gis nga loolu c'est une défaite c'est-à-dire xam nga soo nee xas ba ne da nga nekk en république am na li nga xam ne waratu ko mën a def mënoo jël loi euh, sur mesure personnalisée pour benn wala ñaar wala ñetti nit dama la jox exemple. léegi soo jëlee loi boobu xam nga révision list euh, révision élect fichier électoral bi xam nga tëj nañ ko. waaw léegi nag soo jëlee loi boobu nga delloo si xalifa ak ñoom ñu si fiche fichier révision bi da ngay dem jël beneen décret pour ubbi révision bi dugal leen si. xam nga tëjaat indaat benn décret. xam nga yooyu ça se fait ba pare nee naa la mais soo defee loolu mais Ousmane ko effectivement day ne mais pourquoi du ci bokk parce tam sénégalais lan mooy ndeyu nga jël benn loi ne lii pour Karim Wade rek la wala pour pour Khalifa Sall rek la mais loolu soo defee ma ne da may poñ da ngay may argument Ousmane Sonko pour man tam dañ ma ko war a defal te sax Yewwi loolu la wax moo tax c'est une démarche gauche man je peux comprendre nit ñëw ne bon voilà peut-être lii am na lële am na dañu bëgg Sénégalais yi juboo comme dañu bëgg sénégalais yi juboo moo tax dañuy jël une loi de transition wala une loi de réconciliation ba nga xam ni loi boobu mooy gouverner naka la ñuy jógee fii ba 2024 mais doo changer loi yi ah. maanaam loi boobu ngay tënk ah. mooy organiser yi ni ñuy doxalee tey ba élection yi passé su passe mu nekk nag une loi temporaire bi nga xam day tax sénégalais yi juboo mais doo changer les lois d'accord Amadou Gueye euh, dernière question euh, ñi faatu woon ci euh, weer bi ñu génn mm-hmm. président nee na danañu si ubbi enquête lan nga jeex no loolu moom def naa président wax na ko waxaat ko man du ne gëwuma ko parce que nag c'est mon président la république mais tey dafa waroon tax joxe ay délai su bëggoon tey ñu gëm ko day ne dans vingt jours dina dina indi conclusion xam nga nag enquête munoo ko toog rek ne yaa ngi jëmale xaw ma kañ. à un moment mën nga leen indil conclusion yi parce que nag gis neen vidéo yi ñi doon tiire mën nañ leen identifier parce que ñu ngi nekkoon avec les forces de police su nekkee ñooñu àndoon ak ñooñu duñu force de police nga ne ñii duñ force de police kooku mooy benn euh, euh, euh, armes yi armes yi yi ñuy wax mu ngi mu ngi circuler yooyu tam war nga ko mën a war nga ko mën a identifier donc man ci gàttal moom laa wax sànq théorie du complot bu président di wax dafa war indi des faits parce que nag su continuer di wax il y a des manœuvres contre le Sénégal il y a des forces occultes on veut déstabiliser les confréries yàgg ko wax sans indi preuve moom dafay discréditer boppam parce que moom contrairement aux autres ñi nga xam ñuy wax rek di accuser moom c'est le président de la République d' accord jërëjëf euh, Amadou Gueye euh, ñu lay sant di la gërëm. xaadir euh, maa ngi lay gërëm di la sant ci interview bi di ñaan yàlla nag li ñuy wax fii j' espère que leer na ci bopp nit ñi bépp kàddu bu ñu yëkkati te mu am ñagas-ñagas ñu ngi koy ñu ngi siy jégalu de rek xam nga voilà donc. bu la remercier di sant sénégalais yëpp di leen woo nag ci jàmm. parce que jàmm rek moo am solo te Sénégal dëkku jàmm la bu ñu bàyyi politique gaañu wala gaañ suñu mbokk te ne nit ñi juboo ci seen kër yi ci seen quartier yi parce que voilà adduna bi yàggul te kii du dara lu dul jaar-jaar. d'accord jërëjëf Amadou Gueye mbokk yi moom mooy président euh, union nationale des indépendants du Sénégal UNIS euh, moom nag candidat la wala candidat la bëgg a nekk ci élection présidentielle 2024 incha allah mbokk yi moom lañ amoon mbégte invité ko tey ci rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi mu am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu bi di ko gërëm Amadou Gueye mbokki di leen jox dig daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.